bisu àjjuma day moom nee na deel fexe ba jàng ca suuratul kahfi boo bëggee jariñu lépp loo wute njariñ daal xamal ne fexe ba jàng saaru kahfi ci bisu àjjuma moo ci ëpp solo moo ci gën mu daal la ci wax nag ay njariñ ci boo jàngee kahfi ci bisu àjjuma bisu àjjuma soo ci jàngee saaru alkaaf dañu lay leeralal sa digganteeg kaaba ga bu ñu nee ku jàng saaru kaaf bi ci gisu ajuma ñu leeralal la sa digganteeg kaaba ga al imaamu Shawkaani day wax ni lañ ci jublu mooy rekk al mubaalaxatu fi sawaabi tilaawatiha bima tataxaqaluhu al afhaamu wa tatasawwaruhu al xuquul maanaam tuyaaba ja moo réy réy ba nga xamee ne mënees laa wax na mu toll ñu bëgg la koo nag misaalal misaal moo xam ne da nga ca jeeñeere na tuyaaba ja réy ñu wax la ne la saa yoo ko defee rek kon ñu leeralal la sa diggante ak kaaba ga mooy fa nga toogoon di ko jàng sa diggante kaaba ga lépp dañ la koy leeralal loolu misaal la ci tuyaaba ci na muy réew ba nga xamee ne daanaka xel mënu koo jeeñeer te mënees la ko wax itam ba nga xam ko